ci benn école la ci walla ci benn inspection d'académie yaakaar naa bu luga mais li inspecteur euh, euh, d'académie bi bu Louga def man jàpp naa ni dafa méngoo ak président li mu wax démb ci conseil des ministres mooy faw ñu jooyanti defaraat lu jëm ci wàllu jàng <coughs> jàngale ak conditions yi ak environnement wu jàng te inspection d'académie bu Louga man dama koy euh, félicité di ko encourager di wax ni yeneen inspecteurs yëpp dañu war a def ni moom parce que dafa gis ni ci ay journée culturelle wala ay kii yu mel ne euh, ay Fosco xawma nu koy woowee ci ci temps xale ñoom ñu koy def di dajaloo en tant qu'ay élèves la nekkoon objectif yi mooy récréation la certes mais en même temps dañ ci doon continuer di ñoŋal seen jàng waaye léegi xoolal li ci am euh, dañ ma woon il une semaine ou deux semaines ci euh, je pense TikTok. Mmh. mais ngay gis ay challenge yu fecc ay élèves ci moment yu mel noonu. Mhm. nga ci gis ay nangami millier de vues ñu naan kii moo mën fecc ak kii moo mën. waaw pour ne pas àgg ci loolu. waaw waaw suuf ci élève no ci élève. non ci élève non c'est bien sa de savoir certaines ah, choses. Ah, ah. ça te permet au moins nga mën a. Euh, évoluer ci millier bi ñu nekk. ndax seen réalité. Mm-hmm. Mm-hmm. lu lu am la. Mm-hmm. le président bu ñëwee wax ne ni faw ñu joyantiwaat jàng bi école yi jox gën a joxaat gëdd école yi. ñu gis bërki démb le ministre euh, Moustapha Mamba Guirassy dem ba ci école ba mu jàngee bu doon sama sago salle informatique bi nga xam ni euh, jàngee moo nekk ñu classe ñu soppali ko def ko salle informatique bu doon nañ koy tuddee sax sama maîtresse boobu nga xamee ni dafa yàgg ci enseignement di jàngale occasion de remercier ñi ñu jàngal ñun ñi ku ci nekk muy feneen ku ci nekk am na loo xamante ni kala jàngal am na lu mu def ci yow man damay fàttaliku ba may nekk peut-être Madié Sall di def euh, CPC1 benn professeur sa benn enseignante man fan yee passé nañu téléphone et ça m'a fait énormément plaisir moom ci boppam muy wax mbégte bi muy am ne ni kii de jàngaloon naa ko ba muy nekk xale mais euh, lan mooy différence ñu suñu ak suñu papa yi ñoom seen jàng ak tey jàng lañ jiitaloon pas leneen tey xoolal luñ dugal ci biir jàng bi am na benn journal bi wax ci le euh, les nouvelles drogues ay non ci ci kii mooy yi ngay utiliser ci internet jeu de hasard yi waaw hasard critique waaw ah, ba ci drogue yi waaw ak drogue bi. ak yeneen ak yeneen. léegi école ngay jàngee tox ah waaw merci. école lépp. école ngay jàngee naar non fa ngay mokkalee naar bi fekk na jàngoon nga ko pare sax. école nga koy jànge ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne école nga koy jànge mhm. yu bari même sur le plan euh, ngeen baal ma mais comme euh, dañuy wax lii xew. te ñëpp xam ko mais ñu war ko jël teg ko ci kanam pour que peut-être autorités yi am ay efforts yu ñu ciy mën a def. mais tey nga jël sa téléphone portable yi am ñun de amuñu woon téléphone portable suñu jamono wax dëgg ndax boobu siiwagul amagul wala bëriwul. waaw bëriwul woon mais léegi téléphone portable bi école ñëwuñu ko pour jàng alors que mën nga ko utiliser pour jàng tey ñu ngi dans le monde entier lan la ñuy jotal ay intelligence artificielle euh, ay euh, nu ñu koy ñenn ñi Snap la ñuy utiliser ñeneen ñi la ñuy soxla mooy chat GPT. pour mu mën laa jàngal nan ngay bindaate nag ngay waxee ak yeneen ak yeneen loolee yëpp bokk na ci loo xam ne ni tey si le président de la république prend les devants wala prend sur lui ne ni lii nañu ko presque conseil de ministres bi yëpp démb loolu la ci gën a sukk la ci gën a taxaw mu jël ci benn large part def ko ci euh, fan yee passé mu dara ay xale ca euh, présidence de la république euh, wan leen kër gi ak yu mel mais la mu leen wax moom la leen bëgg firndeel na ni du yem ci wax da bëgg tamit ñu jëfe ko mais c'est une bonne chose chose euh, ku ci nekk si ñun boo amul doom am nga rakk wala nga am jarbaat boo xam ne mu ngi école yenn saa yi nga am lu la naqari loo xamee ni doo xam noo koy defee. bu bay boo xoolee.